asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu déglu suñu émission li xew si dëkk bi tey ñu ngi ak euh, koo xam ne kii dawal Jakarta moo ko agressé monsieur Kounda Kam sëñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax man la dëkk Dakar benn euh, borom Jakarta laa jëlee buntu garas ne ko fee laa jëm mairie ñu waxaale deux cent jubóo ñu dem ba si yoon mu ne ma wàccal fii jox ma cent franc ndax boobu loolu mënu faa dem ma ne ko loolu mënu ma la koo jox mu ne ma kon nañ dem ma delloo la fu ma la jëlee woon ma ne ko nañ dem ñu dem ba yoon mu taxaw ne ma wàccal fii benn fekk ñu fa ne ne comme loolu la jox ko cent franc ne ko demal yóbbu biñ demee ba jub mairie bi ma ne ko mayam ma wàcc mu continuer dem ba ñu romb mairie bi ma ne ko sawaay maa ngi passé mairie bi mu continuer dem ma ne mu taxaw mu wàcc dóor ma ci bët. mu dóor ma waaw. bi mu wàccee fan la ci bët. bi mu la defee noonu ñu defee noonu ñu commencé jàppante gars yi ñëw téye ma ne ma bàyyi ko benn waay ñëw ne ko li nga def tegoo ko fenn après yeneen gars yi ñëw téye ma muy taal moto bi dem ma daw jàpp ci moto bi ne ko doo dem mu dóoraat ma après gars yi téye ma mu taal moto bi daw dem ma retourné ñëw buntu garage fekk ko foofu waxuma ko dara ma continué dem dugg ci biir garage bi ci police bi nekk foofu ma ma expliqué ko mu woo ko mu ñëw bu mu ñëwee mu laaj ko mu ne ko kii yaa ko dóor ci bët mu ne ko dóoruma ko kii dafa feebar moo ci génn boo gisee ni mel nga xam ne feebar moo boo ko dañ ko cee dóor boo ko mënee balu àq nga balu ma ko ba yàgg mu ne dama man maa ko saaga dóor ko mu fayu après ci dama policier bi ne ma kon demal central nga bind plainte ñëw boo ko déposé nga ñëw ñu kii ko après ci laa fi ñëw bind plainte bi maa ngi ni bëgg koo yóbbu nag man Touba laa dama màggali woon ñëwoon ñu sama oto ñu téye woon ko fële ma dem doon fay pièces yi yóbbu la mairie. waaw ngeen ñëw ba mairie moo la. waaw dóor la mu la dóoree. waaw doon ñi doon àtte ñi ngi doon traversé noonu. kenn ki nee na moom borom Jakarta la may yorul Jakarta tey. après moom dañu téye sax expliqué mu continuer xataraayu waa ji bàyyi dem. bi mu commencé kiiyaat nag la waa ji retourné ñëw bi ñuy expliqué waa ji ne ko man maa fi jëkk a ñëw wax la nga të ma bàyyi leen dem. benn waay bu doon nekk foofu ci côté ci côté gauche bi daal di traversé daw ñëw bi mu ñëwee moom sax moo ma téye waa ji taal motoom dem. waaw ci laa retourné ñëwaat garage fekk ko xoo ma ñëwee waxuma ko dara ma kon ne dem ci alkaati ban yoon la jël bi nga xamante ne yow ak ngeen mairie te yow nga que bëggul woon mën na nekk ndax bi ko waa ji jox cent franc yi man ne naa ko yor naa lu ma ko fayee waaye dama ko dul fay loolu ndax deux cent la ñu waxante woon mu ne ma yoroo dara ma génne sama xaalis woon ko ne ko man yor naa xaalis da li li li nga def nii du ma la fay lu passé deux cent yi ñu waxante woon li nga génne woon lu toll ak ñaata la mi cent vingt-six mille cinq kon daal bi ngeen ñëwee ba mairie moom dafa continuer ak moto bi dafa continuer ak moto bi waaw nan nga def pour arrêter ko man damaa jàpp ci guidon yi ñaari guidon yi freiné moto bi mu taxaw waaw boobu ngeen commencé waaw mu wàcc dóor ma bi nga demee ci euh, gare routière bi police bi nga waxal lan la la wax police bi dama diglu woo ko mu ñëw mu wax mu ne ko kii yaa ko dóor mu ne ko dóor ma ko kii boo gisee bëtam bi nga xam ne feebar moo ci génn fekk boobu affaire bi day soog a am ah, loxoom mi ngi marqué fii après ci la alkaati bi ne ko lii boo ko gisee xam ne loxo moo ko def mu ne ko non feebar moo fi génn ci la discuter ba yàgg mu ne ko moom moo ma saaga dóor ma ma fayu alkaati bi ne ko noonu la demee demal nga bind pelante nga ñëw léegi moom anamu mi ngi foofu ñu téye ñu ngi téye ci euh, police bu garage ci garage bi waaw léegi bi nga demee police u Thiès euh, porte plainte luñ la wax ma demee police Thiès porte plainte ñu bindal ma plainte bi léegi maa ngi war a ñëw demaat yóbbu ko garage jox ko ko foofu. lan ngay liggéey. man chauffeur la. chauffeur waaw. est-ce que tey euh, plainte bi ak lii nga xam la est-ce que du yàq dara ci sa liggéey. Hmm? ah non mën na ci yàq dara. fan ba pare. est-ce que amaatul yeneen coow ci biir ci biir garage bi. déet ndax euh, am na mu ñëwee ne ko yow li nga wax amul. kii boo gisee xam ne yow yaa ko tooñ dóor ko boo ko mënee balo àq nag nga balu ko àq mu bal la kenn ku ne dem mu ne duma ko balu ndax moma saga dor dóor pa paa bi ne ko yow da nga jikko wax ne ki dóoroo ko sa loxo laalu ko da nga febar mo genn ci butam te ki boko gisee xam ne da nga koo dóor ma gi comme non la demee jaru ko ma dem bind plante mi ñew may ñew gor gi woma mané ko non gor gi bayil non rek comme wax nañ ko mu bop bayil man ma dem lu yoon may ma jël est-ce que lii ben yoon bi rek la la dal non mi ngi may sogo dal tay fii ci bir Thiès ci bir Thiès ab Jakarta ab Jakarta warta nga plante waxtu ñu jox la numéro mention tay euh, buñ la waré wax pour nga dem bu suba noy def bu suba jam bu ma né ci jam rek inshallah bu ma xeyé dina ñew ñi nga ñibi wat ni dakar wa damay demat ni dakar mo bu nexé yalla li est ce que du la galancor ci sa liggéey ah man na nek ndax beut mom dafa sensible lu nek man na ci ki té comme loxo mo jog dal ci lu ne man na ci am amulo ay mbokk fi ci bir ties pour fanan fi ba lijeenti say affaire ah non non fi mom amu fi ay mbokk wax deug yalla man na nek amna fi ay mbokk sax mais xagn na xamuma len ko radio da ngay ñibbi Dakar bu dee wax nañ la kiiwu plante bi da ngay ñibbi Dakar boo xëyee nga ñëwaat. waaw bu neexee yàlla. kon jaral na la nga topp affaire bi fu mu yem. waaw oui dina ma ko jaral ndax comme moom jotam may na ko lool tem def ma ko man sama jot war na ma mën a may lool ma topp ko. parce que rucculoo ci comme xaalis bi nga yor ni mu bëree sa poche moom mu bëggoon laa jubal yóbbu feneen war laa agressé ak li ñuy dégg ci agression yi est ce que tey mucculoo ci loolu. xañ na loolu sax mën na nekk ne xañ na man loolu moo tax ma jàpp ci giron yi pour mu taxaw ndax romb na mairie bi lu bari biñ ñëwee fee ñu ko waxee mu ne benn camion moo toppoon ci ginnaaw moo tax mënul taxaw te camion bi toppul ci suñu ginnaaw ci kanam ci kanam la ne woon ñun ñoo toppoon ci ginnaaw camion bi. kon daal dañuy jàpp ni moom dafa la doon yóbbu ci beneen euh, bërëb pour mun la agressé. man de loolu laa xalaat ne xanaa xam ni loolu la bëggoon def. wala itam mu bëgg ma yóbbu ba ma sori mu wàccee ma foofu ma dox ñëw. kon nag léegi suba ngay euh, xoolaat sa convocation pour ñu mun leen aat. waaw bu dee ni suba huit la bu xëyee ma amul benn gàllankoor bu neexee yàlla bu xëyee huit heures dinaa ñëw